man damay rebondir un petit doyen si wax concernant le dialogue parce que man je pense que booy woote dialogue da nga war a teg quand même un cadre ak aussi les règles du jeu que ça soit des règles claires. pour li nga xam ne moo di personnalité neutre bu mu wax. non attendez parce que xam nga dialogue woote woon na ko parce que pour man. Mm -hmm. actuellement un dialogue ne règle pas cette situation parce que woote na fi dialogue boo xam ne tiré na près de deux ans. et chaque fois le président Macky Sall boo seetloo buy woote dialogue bu demee ba jaaxle ba nga xam ne nekk na euh, donc devant le mur xamatu bi def ci la woote dialogue ñëw nax gaay et pourtant dialogue bi amoon euh, avant les élections locales dafa xoon ni moom affaire yu njur jaajoo dekkatu ci bi ñu wootee ñu wax il a tiré il a fait tirer le dialogue en longueur ba mu durer plus plus de seize mois. Mm-hmm. la nga point yi nga xam ne essentiel yi nga xam ne moom la opposition doon demandé dialogue boobu ça n'a pas été réglé. problème parrainage ba tey ça demeure un point pendant le problème de Khalifa le problème de de de, de Karim ça demeure des problème pendants lam ci jubloon mooy lan on a traîné le dialogue parce que période boobu euh, bu ñu électorat favorable koon et toujours il il day basé sur des sondages pour def des décisions politiques ñu reporter élection yi euh, à deux ans li ci xew xew ci après les élections locales mm-hmm. maintenant bu ñëwee ni day wotuwaat dialogue en 2023 dialogue boo xam ni am na ñoo ci waxal ba d'accord loolu c'est pas transparent dialogue boo xam ne aussi waxoo clarifier sa position ni man je vais incarner une neutralité ci li nga xam ne moom la ñëpp di di di di la jën ci xalaat moo def calcul politique ngay def mm-hmm. et donc moom clairement ba muy def élection ba muy def euh, euh, comment ça s'appelle euh, référendum 2016 et d'ailleurs avant 2016 même en 2000 12 bañ koy fal 2011 bi ñuy xeex fii moom lu mu doon xeex troisième mandat. waaw mais il en a parlé ñu ñëwaat yi 2016 mu wax ni moom deux mandats ci lay yem tey mu ñëw nii day wote jëlaat pour lan pour mën a valider sa candidature. mais nag on est on est on est d'accord. oui ah, maintenant ah. je termine par là. maintenant problème qui se pose mooy lan mooy que ni moom bu demee ba jaaxle rek day jéem a woote jëlaat ndax gaañ. mais ñu daan di wax ni sur les principes. on pour le dialogue oui pour apaiser la le climat social actuellement mais nag bu ñuy dialogué dañuy dialogue ci li nga xam ne mooy lan naka lañ mën a fexe ba nga xam ni prisonniers politique yi ne la ñuy ñu leen ñu ñu ñu ñibbi seen naka lañ mën a assurer une élection libre et transparente naka lañ mën a assurer l'indépendance n'est-ce pas et de la justice ak la liberté d'expression et démocratique yooyu mën na ci waxtaan. ak naka lañ mën a waxtaanee sur un processus électoral boo xam ni du jur coow. ñun ñëpp di ci d' accord. mais suñu di waxee lu dul bu fekkee dañuy dialoguer affaire troisième mandat ñu d' accord ci. donc loolu c' est des de principe boo xam ne d'ailleurs F24 loolu la wax. ok F24 nee ci dialogue parce que dialogue pour valider une troisième candidature. yéen mën ngeen bëgg ngeen mën ngeen dialogue